ñi bëral suñu kaddu rek ci loo xam ne jàpp nañ ne mooy actualité bi gën a fés ci Sénégal moo xam ne na depuis avant màggal ci jamono bi ñu nekk di préparation màggal nga xam li unn coow li tey fii ci Sénégal loolu mooy coow li jiitu muy benn nit boo xam ne ci niñ ko mën a waxee mooy nit ku ñàkk solo koo xam ne tey jëfam ak taxawaayam ñepp yàgg nañ ko gis mu yàgg attaquer Serigne Touba lool nak du lu bees lo xamne ne nako na nako def ci jamono bi mais lu mu yàgg def la ñu yàgg ko alerte yàgg ci wax ak mom nit nak li ñam duma top diw boko ko fa ngeen jëm sori wut te ñun lu ñu am Serigne Touba ñu gënal nit mënu nga denc sa pas-pas di ñu xeebal sunu pas-pas te loolu lañ commencé gis ci réew bi té lool nak en général fu muy am te kilifa ya war addu addu wuñ bu yagge bu yagge leneen man na xew ndax nak bu fekke réew mi dafa am yoon te ñi yor walum yoon ñom dafa melni protéger nguur si ba wuñ wax ak mom wala ñu jëflanté ak mom ci leneen su yagge nek talibé yi danañ fajal seen bop ndax ñun amuñu du Serigne Touba ndax suñuy mam ak suni wajur dañoo jaayoon seen jurel jëndé ko and ak ko Serigne Touba ñoo nang nak nit bo xamné tekki wu dara ci aduna bi amul lenn lo xamné defal nako tey Sénégal moo ko fay moo ko defal lépp ta li tax Sénégal mën ko defal lépp dafa am mag ñu fi nekkoon jaayante seen àdduna ba taxawal lépp tey kon mag ñooñu li ñu bëgg mooy ku leen wekk ñun nag Serigne Touba mooy sunu lépp ku wekk Serigne Touba danañ la wekk ku wegul Serigne Touba mënuñoo sax waxtaan ak yow bay bay seq ak yow ay weganteel benn benn benn daanaka boo ko doon tuddee tey dañ koy mën a jàppee fonctionnaire bu nekk ci biir palais boo xam ne tey lu mu am tey jàpp ne ne noonu Serigne Touba la Serigne Touba du ko ñuy noonu ñàkk koo xam nag wala gëstuwu ko moo tax mu mën a yàq lu ne Serigne Touba

mu tan digganteem ak Serigne Touba wala digganteem ak Omar Dia ñaari ban moko ci gënal kon na état bi góorgóorlu ci sécurité réew mi benen bi ci desaat tamit moy gis nañ député yi ci ñaari fan yi ñi nek assemblée nationale di wax ci mbirum projet de loi bi nga xamné dañ ko yobbu won pour supprimer ñaari institution wa légui ñaari institution yo ndax ba lañ ko supprimer wuruñ wona jitu def déclaration politique générale xam fan lañu jëme Sénégal pour ëlëk ba paré ndax amna lu ko jitu yow da nga waxone fonds politique yi nga xam ne président de la république amoon na ko muy 15 noir premier ministre am na ko dañ koo war a dindi ndax riba la waaw ndax mën ngaa bàyyi riba ba pare bëgg a dindi loo xam ne ay institution la te boo boolee STC ak ak ak ak ak CES li ñu am ci ci ci budget soo boolee li li li li li quest euh, caisse noire premier ministre am ak caisse noire président de la république mën na ko tripler de fois di soutenir koo xam ne tey dañ ko bëgg a jaay doole muy Serigne Modou Boussa Dieng di sët di doom di sëriñ loolu nag na nga xam ne doo ci wét ndax ay taalibe Sëriñ Tuubaa nga ko bokkal te ñun waa parti Teranga Sénégal de lépp lu mu laaj pour soutenir la danañ ko def ndax nag duñ nangu benn saay-saay boo xam ne dañ koo jox doole ngir mu faagaagal li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon benn sëtu Sëriñ Tuubaa jug di ko défendre di défendre maamam di défendre ay talibé yi Serigne Touba ñi ne ko loolu waroo koo défendre ndax kee la mu wax mooy dëgg kon bu fekkee ne état bi maanu na wala li muy wootee doon dëgg na wax Cheikh Omar Diagne ña ko nekkoo ci dëgg sëñ Modou bu sa li mu def moo nekk ci dëgg te nag ñi ngi koy alerte di ko wax ne ko na njëkk tey na mujj tey na njëkk tey na mujj tey muy defati benn wala muy waxati dara di ko adressé Serigne Touba mayatuñ ko ko moom loolu moom dafay jeex beneen desaat tamit mooy Touba manqué wul dara Serigne am na lépp ndax ku mën a taxawal université yaakaaroo ci état kon jàpp naa ne ab hôtel du sa problème ku mën a taxawal ay résidence ay hôtel du sa problème te jàpp naa ne su fekkoon ne ñoom li ñu waroon na def bi ñu ñëwee waruñoo def Touba am noonu li ñu waroon na def mooy ñëw xool ni Touba di doxee ak ni ni ni talibé murid yi di doxee ñu copier loolu pour mën cee yor Sénégal waaye leneen lu ñu def lu dul loolu nañ xam ne ñun ak ñoom mënuñoo am mu consensus mënuñoo déggoo ndax ñun suñu dëkk bi nag. wala sun mag ñi ak li fi ci sunuy maam liggéeyoon du ñu bàyyi kenn diñu ko lemal ba mu jekk di ko sànni ca poubelle ba di ñu yónnee leneen ay taalibe la ñuy doon Sëriñ Tuubaa ñu gënal sunu bopp moo ñu gënal sunu alal moo ñu gënal sunu lépp ku jàpp Sëriñ Tuubaa ñu jàpp la ko ko bàyyi ñu bàyyi la wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Le parti Teranga Sénégal s'est réuni ce mardi 3 septembre à Touba en présence de son leader, le docteur Abdoulaye Niane et des responsables des départements du Sénégal. Le but de cette rencontre est d'analyser la situation nationale et de se prononcer sur l'actualité des derniers jours. De même, la vie du parti a été discutée. Sur ce, on tient à informer l'opinion nationale et internationale suite à la présentation du vice-président Michel As Babacar Gueye sur vie du parti, l'Assemblée s'est exprimée sur l'actualité de notre cher Sénégal. Ainsi, le PTS a marqué sa profonde réprobation suite au refus des autorités étatiques d'accorder des logements à la délégation diplomatique étrangère venue pour la célébration du Grand Magal de Touba. Ce geste est perçu comme inapproprié, inélégant et contraire aux valeurs du Sénégal, faites de teranga et respectueuses des communautés religieuses nationales et en particulier la communauté mourite. L'État doit se rapprocher de la communauté mourite et de toutes les grandes familles religieuses, afin de mieux les assister dans de telles circonstances. Par ailleurs, la question de l'insécurité croissance dans le, croissante dans le pays a été soulevée avec plusieurs agressions survenues au cours de la semaine. Le parti Teranga Sénégal appelle ainsi le gouvernement à prendre ses mesures fermes pour renforcer la sécurité et protéger les citoyens et les populations conformément à ses promesses électorales. En ce qui concerne les différents au sein de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, notamment entre le ministre de l'hydraulique, Cheikh Tidjan et son ancien collaborateur, le directeur général, Dr Chardien. Le parti interpelle les autorités à clarifier les soupçons de corruption soulevés. Le parti Teranga Sénégal demande au président de la République ainsi qu'au Premier ministre d'assumer leurs responsabilités et d'initier une enquête approfondie pour clarifier cette affaire et garantir la transparence dans la gestion des affaires car le djub, ne doit pas être un vain slogan, mais ça doit se euh, voir dans la pratique. Le Parti Taranga Sénégal reste déterminé à œuvrer pour la justice, la transparence et le bien-être des Sénégalais. Je vous remercie.